asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim ñoo ngi am mbégte di ànd ci jataay bii nga xam ne ñu ngi koy amale fii ci kër alaaji babacar kebe njuga eh, te doomam ji nga xam ne moo di soxna moomi kebe eh, féete fi di fi dundal bis bi nga xam ne moom la ku tedd ki Seexuna Ahmadul Xadim wax ne bu ñu ci accès te na ko ñëpp maase sant la borom bi subhanahu wa taala eh, te it suñ borom subhanahu wa taala moo wax ne eh, bu ngeen ma sante danaa leen dolli waaye fedd liwaat ci ak cant martaba mi mu am ci lislaam tax mu ne lu ëpp ci nit ñi sax day dañoo santut waaye bu santoon xéwal yu bari dana tisaaroo Eh, bis boobu nag nga xam ne sëriñ bi da cee liggéeyal yàlla liggéeyal ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ba sun borom jox ko ndam lu toll ne lii mu ko jox eh, mu mel ne bis la boo xam ne buñ ci accès mbooleem doomu aadama yi nga xam ne seen yaakaar ci sëriñ Tuuba ne waaye jullit yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw yonte bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu ëpp mbégte mooy seen alal jëpp ñu sante ko borom bi subhaanahu wa ci bis bi loolu nag ràññi nañ ci taxawaay bu mel ne bu soxna Momy Kébé mu feggoog kilifaam di alhaaji Abdoulahi Tage ñuy taalibey sëriñ tubaa di taalibey Serigne Saalihu Mbacke ñu toog fi nag ci kër gi ginnaaw bu ngeen gisee taraanga yi nga xam ne moom la fàggul bis bi ak yeneen taraanga yoo xam ne mën naa am sax gisuñu ko waaye gisit bis bi nga xam ne moom la jagleel njabootuk sëriñ saalihu gi di mboolem dongo yi nga xam ne ñoo aju ci kër sëriñ saalihu di leen woo di leen teral laata màggal gi tàmbali bu ñu noppee mu dajalewaat jullit yëpp teralaat leen bu ñu àggee ca bis ba nag mu def ay berndeem ànd ko ak mbokki murit yëpp ci lañ toog ak oustaz Dieye mu nekk sama loxol càmmoñ ñu fegoo ci sunu ndijoor ak oustaz Ndiaga Seck yéen ñëpp ngeen ràññu ko ci jataay yu am solo yi bëggoon rek ci bis boobu nga xam ne euh, bisub sant yàlla la boo xam ne Serigne Touba ko woo ñëpp ne nañ ma sant la yàlla euh, ñu gisit li nga xam ne euh, ñëw nga fi teewe ko soxna moom mi di ko def ci bis bi la bëggoon rek nga ñëwaatuñu ci tuuti oustaz yi ginnaaw ba noppi nuyoo ba noppi ñu ñëw ak sunu xarit di oustaz Ndiaga sekk moom itam dana ci ñëw ci liggéey bi ni ko sëñ Touba wootee ak ni ko soxna moom di dundale ak sëriñam bi di sëñ Ablaye Tall. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf ku baax ni nga ko waxee noonu rek la ndaxte euh, euh, lépp loo xamante da nga koo yàgg di ko seede mën nga caa waxtaan. ba tax na maa ngi ñaan sama première ñaan sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg ndax lii mbir la moo xamante ni. Euh, fay lay alhamdu ñun suñ xol sedd na soxna moom mi nag euh, ko baax euh, du tey jii rek laa war a màggale moom bi ma ko xamee ba léegi sama saak ci këram moo ñëwee Touba euh, alhamdulilah yi te soxna moom mi dafa am lu ma lay seedeel ndax li ngay seede da koy fekke te dama ko fekkee soxna moom mi mbokkam yi la jëkk bëgg teg ci comme ci koy teg. ay tantaam a ngi fi ñoom day astu ak ñoom Awa Ndiaye ak xariti yaayam woon ak xariti papaam li gën a jafe say say wàjjur ña ñu amoon nga récupérer leen ak ñi nga am soxna moom yi boo demee ci aaya bale fa yàlla ne alladina amanu wa amilu salihati tuuba lahum wa husnu maab soxna moomu am na ci cër ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla toujours ñuy def lu baax guddeeg bëccëg ñooñu day dañuy texe ëllëg ah, dara gën rafet waaye mujj gi rafet gi yàlla na yeex euh, leexalee bi Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul wax ci bisam bi moom it dafa dégg ndigal soobu ca seey ca moog borom këram euh, mooy Cheikh Abdoulahi Tage yàlla na fi yàgg lañ fi nañ fi yàgg ñoom ñaar ak mboolum jullit ak ñun ñëpp mu dimbali ko ci nag kenn ku ci nekk lu baax dalaa ñor ndax bu fekkoon ni kenn ki lu baax da koo ñor kenn ku lu baax ñoru ko kenn ka dana paralyser morom ma waaye ñoom ñëpp ñoo bëgg Cheikh Ahmad Bamba topp ndigal nag sey ci ndigal a Cheikh Ahmad Bamba te sant li ëpp sant bokk na ci li ëpp sant mooy joxe ñam joxe ñam dafa baax ndax sëñ bi nee na woon sama bis boobu li bàyyi ko ci ginaar ba ci gileem lu ci waaye man moo tax soxna moom mi bis bi su ñëwee lépp loo xamante ni nit mën na koo jëfandikoo muy loo xamante ni ber la ba gën a neex nag lay wut ba gën a seer lay jël alalam te sëñ bi alal ci xol la taq moom i dafa tabe ci mbirum sëñ Touba moom i dafa tabe ci lépp loo xamante ni jullit ñi dañ koo bëgg muy fooka làmbe fu ne liñ koy ñaanal mooy téeméeri at ak juróom fukk yu topp ñun ñu ñëpp ñu fekke ko te la ma la ceexu mooy dégg ndigal ga mooy Cheikh Ahmad Bamba nee na luqmatun te suddu batnul jaa'ihi afdalu bi binaay alfi jaamiin nga jël nga woo ab julit jox ko lekk mu lexelu si Ahmad Bamba nee na moo gënal yàlla nga tabax ko junni juma te jenn jàkk rek koo ko tabax danga nga dugg àjjana man banna baytan lillahi banna allahu lahu baytan fil jannati moom la rasulullah wax ci addis bu wér ku tabax jenn jàkk danga am nga am àjjana na nag soxna moom yi li nekk ci kër gi ëpp na juróom-ñetti téeméeri nit ñëpp dañ fi dañuy dañuy leexelawu te bu ñëwee dootul xoolati benn dencam bu des lépp lay fëgg dénkom jëlëb ko lu des rek du am du ko neex bu boo bis bi itam ñun ñii nga xam xamante ay taalibe lañu ñun bu ñu ko xoolee sax dañuy gën a amuk taalibe ndax foqati gi muy foqati euh, ak ñaq gi muy at na ñaq ci ci mbirum sëñ bi ñun dafa ñoo yokk leneen ba tax na ñoo ngi koy santale yàlla di ko ñaanal mu yàgg fi ak njabootam ak ñun ñi ñëpp waaye daal li ma la wéral ni mooy leexale ndax weeru koor day rëy na waaye soo naanee ci bëccëg bi te tey ko ah boo joxee lekk dana ko rempli xam nga xam-xam ba mooy la na alquran charia la mooy juróom benn fukki miskin ngay woo ku ci nekk nga jox ko lu fees biiram rempli na jour boobu yi kon lexele daa bokk ci diine lislaam si Ahmad Bamba nag itam boole ko ci ba si Ahmad Bamba jàngale woon ma boo gisee ma si Ahmad Bamba tàggat ci murit yi mooy bañ benn murit yëppande lii ku yàppante du ko mën a lii ku live du ko mën a lii ku borom xol bu xat du ko mën a ku nay du ko man te yonent bi salaa salaam nee na yàlla ci boppam daa bëgg jaamam bu tabe inna allaha jawaadun yuhibbul jawaada yàlla ko tabe la bëgg na bépp jaamam bu tabe yàlla kooku yàlla da koy fan ñoo ngi ñaan yàlla yàlla defal mu soxna Momy Kébé ak képp ñu fi ñëw ak bépp murid ak bépp jullit xéwal gën a yokk waaye Momy moom exemple exemplaire la buy koo xam ne day jàngale ni moom ku gëm yàlla la parce que ni muy defee xaalisam ah wóolu na yàlla ku wóolu yàlla yaay tabe mais boo gëmul yàlla da ngay nay te loolu sore na ko. di rafetlu kàddu yi te muy kàddu yoo xam ne kàddu yëpp dëgg lay doon ndax itam nag. Eh, nit bu dee wax te yàlla rek tax war nay fab waxam fab bàmmeelam teg ci kanamam rawatina boo daaneelee ñi lay déglu danañ xam li nga wax dëgg la wala du dëgg waaye yaakaar naa ne képp koo xam soxna moom mi eh, te meen ko da nga xam ne li ngay seere dëgg la sëriñ eh, Tuubaa Xaadim Rasul moo waxaloon boppam ne rumtu shukur allahi sil jalali min talzazin bi sikri wal alali kon moo wooteel boppam cant googu nga xamante ne bi ginnaaw bu mu duggee ci coono yu méttee métti lay doon coono yoo xamante ni àdduna bépp seere nañ ko ba mu ñëw yëkkati drapeau bi l'islam wax naa ne ñaari baat yi Serigne Touba moo ko jëkk wax ci àdduna rawatina ci nit ku ñuul wa rawatina ci dib africain muy salimtu min al ahda i turran ma altija yaakaar naa ne ku say noonu ma sa jël jële la fi sa bàmmeel soree na lool ak sa dëkk ba nga cosaanoo woon Serigne Touba wax ne man sama borom musal na ma ci samay noon ba dëkk ba ma jege woon dellusiwaat naa fa sancaat yeneen dëkk amaat fa ganeen njaboot waaye bi mu jekkoo ay noonam itam sun borom musal ko ca lu leen di wax xafawtu anil ahda i turran li wàcci man kon baatub salimtu mooy mucc na waaye xafawtu jéggale naa yaakaar naa ne jaam bu yàlla gërëm rek lañ doon wut ci moom